parce que bu ñu bu ma xamul lu ma lu la metti du ma mën a weccoog yow ça va tranquille tey si nga. waaw. Ah, bon mën na xam naa di nga ñëw jàppale ma parce que dama fa am benn cas bu nekk sama bureau quoi. ah bon dafa am benn dame bu nekk sama bureau. mais mi ngi jooy rek laaj naa ko turam et puis nanguwul wax dara quoi. day ah jooy rek peut-être nag xam naa ni bon. ñàkkoon ni peut-être mën na ma rus quoi. ok ma bëggoon nag comme jigéen nga. ngay mm-hmm. jigéen nga ñëw wax ak moom quoi peut-être yow boo ko laajee turam dina la ko nangoo wax quoi. Ok, d'accord, pas de souci. Je vais fermer là. Voilà. Malgré de l'argent. Hein? Non, c'est pas grave. Tu les gagné là-bas. Ok. Bonjour, madame. Sors, Nassim. Lala noo tudd. Bon Kumba laa tudd. Kumba d'accord La belle Kumba euh, bàyyil Joy, yi nga waxtan ak ñun ndax boo bàyyiwulee Joy, yi duñu xam luy sa problème ndax ñun ñi yéen ñu fi taxato. ndax ñun assistance sociale yi nekkee ñu fi lenn pour des femmes qui ont des difficultés. suñu mbokk citoyen yi lañ fi nekkal surtout rawatina des cas de femmes waaw léegi dañu bëggoon nag nga bay jooy yi pour mën a waxtaan ak ñun bu baax man damay doog am sama bac fuuta laa jóge mais xaw ma fi kenn dañ ma orienté fii Dakar xaw ma fi kenn

Euh, ici, au Sénégal, on a tendance à dire que, que à parler que le viol seulement. Mais il y a d'autres cas qui sont plus durs, sont plus purs que le cas de viol. Par exemple, comme ton cas. Je la xamal ni rek euh, ñëw nga fi nga war a dinañ problème

yooyu itam bàyyil jooy. Mm-hmm. dalalal sa xel incha allah dinañ la mm-hmm. soutenir bu baax. Hmm? yooyu itam lii du dara. su xale bu jigéen bi yërëm naa ko naka franchement et puis tey moom mënu mënu ma sax quoi. France tey moom doo mel nii ku am kay vraiment et puis elle n'est pas mal elle est belle France non je pense que am naa ci moom sentiment France et puis ça tombe bien parce que elle n'est pas mariée Il y a yàlla daf m'a bëgg que quoi puisque célibataire

buy joore langooñi comme kireen <laughs> d'accord Kumba Ousmane tey de moom olof nga génn waaw gis nga <laughs> tey moom jigéen laa solum tubay. tay ah, tey moom tubay yi dañ koo tege na la. tey dama école moo tax. lii daf la jàpp yére olof daf la jàpp c'est joli. ah bon. yee mi ngi rafet ni c'est joli. kon de dinaa koy sol souvent. ah macha allah. <laughs> gis naa fi nga génn. yow laay jàppale. Hmm. <laughs> naka mu. ça va. naka études yeeg ñoom seen. waaw waaw ñu ngi si kawam de xam nga rek fii moom c'est pas du tout facile mais on se débrouille quand même xam naa ne moom. Mm-hmm yalla baxna dal wa yalla baxna dina bax inshallah yow mom benen affaire nga quoi yow mom guerrière nga wax deug yalla parce que situation yi nga traverser jafena nit traverser ko génn ci quoi franchement. parce que yow situation yi nga traverser yep ba pare am courage continuer sa jang bu done yenen jigen yi topoto sen dom sax daf len nit waxuma lak nak kimi le ñaari fonction yi quoi te benn bu ci nek jox nga ko akam franchement sa yang yang koy topoto ni mu waré donc sa njang yang ci nek di ci gor franchement man dama lay ñaanal bu baax a baax a baax defal la jamm quoi franchement mais alors lan nga gannaaw jang mi lan nga bëgg def waaw ya, après dama compté def suma d'ici d'un an buma ma sama soutenance après ma xol rek def demande xol ndax dina mën liggéey fi parce que il faut mu topoto sama dom aussi iya. Mm-hmm. naa ne du yomb nag mais yàlla baax na. c'est bien man daal booy li ma lay mooy gis nga yàlla sunu borom. Mm-hmm. du tëj bunt tëj volontaire wàcc rido non jamais yàlla du def loolu quoi. c'est vrai que nag ne Sénégal fii moom wax dëgg yàlla pour am accès ci entreprise yi dafa metti c'est difficile franchement loolu loolu dafa metti parce que dañ lay laaj CV dëgg gauche à droite indil documents yi ngay fournir ay documents xam nga yu dul jeex. après du mujj fenn quoi mais nak yalla baax na yàlla moom yàlla moom baax na quoi mais nak man aussi bëggoon na ñu waxtaan ci leneen quoi lo xamni ne franchement mënatuma ko denc parce que wax deug yalla suma la fenn amna ay sentiment vers toi bo mo xolé ci sama façon de faire so mo xolé ci sama regard so mo xolé ci ci moy wax sumay ak yow lepp donc da ngay gis sentiment yoy nu muy génnee quoi parce que mënatuma ko té mais nak ay sentiment la yo xamni deug rek ko lal daray caaxaan dalu ko parce que saa su ñuy ya ngi may dalal ci seen ñu tok tok waxtaan sérieusement musuma déborder ben yoon ci waxtaan musuma la won ben affaire bu ñak fayda saa su ñuy damay tok respecter le digne ma waxtaan ak yow bu sama heure ñibi jot ma jog ñibi te bon su ma doon yeneen yi wala lenen taxone ci peut-être mënoon nga xam ma jema a def la lenen lolou tak li tax ma def ko moy nit suku beugé dang koy respecter respect bi la sunu borom jox lolou la la nadal ba tax na franchement ma bëggoon bu fekkee nangul nga mako ko don sama soxna ci farata la sunu momet lolou moma taxaju quoi Osman. man jigéen la sëy rek moom ma war bañu ma sëy tamit mais dafa am lu amoon te xamoo sama diggante ak samay parents erreur de jeunesse bi ma daloon sama doom bi samay parents dañ ma génne woon moo waral sama ñëw Dakar te bëgg naa balaa maa dugg ci sëy ma delluwaat ba Fuuta samay parents baal ma àq ma doog dugg ci sëy toogal nii nga noppali ma dugg ci biir dem sangu parce que sonn naa ci jooy Kumba iya. ma ngi jéglu di xam naa man moom dama xaw a doy waar daal waaw dama bëggoon rek un peu nga expliquer ma sa diggante ak sa copain boobu quoi. moom de dañ ko affecté woon suñu village à l'époque j'étais trop jeune une adolescente trop naïve bi ñu nekkee nag nekk man ak moom ci laa jël grossesse muy sama doom bi. moo nak samay parents ci lañ ma génnee mom aussi ma jékki-jékki dégg ne jóge na foofu Fuuta ñibisi na Dakar ah, ma nekk nonu ak sama grossesse avec toutes les difficultés toute seule bi sama parents yi génnee nak mo waral sama ñew Dakar mu ñew nak indaale sama dom ci la continuer sama études en même temps di top sama dom en résumé dans loolu histoire bi. merci an an sa doom bi moom mi ngi fi. waaw mu ngi ci biti di fo. que tu es na ko. sa tonton. Eh, grand ça va. ça va bien. yaa ngi woon ci biti di fo. waaw maa Oui. sori. déedéet. bul sori de. es tudd. Siré. ah Siré nga Oui. Ah. kon sa tonton laa dégg nga na am li sa ndàmpaay la dégg ay ca dawal dégg grand la waa gis nga ko léegi de moom grand la moom problème nag ku yar lu muy nuyu waaw amul benn problème nag sonaluma si dara voilà gendarme la woon cool Amar naa def. bàyyi nga ma de namm naa la mel. ay waay maa la raw. mbaa exam sant rek booy daw rek taxal rek liggéey bi. naa def liggéey bi ñoo ma. ah déedéet du ma la mere gi la rek. mun la demee nag xolal damay toog souvent sama xel dëkk ci yow. liggéey bi xam nga. bu doon tey ma xaar ma jaar fi xol la. wax nga dëgg kay naka liggéey bi baax na ñoo ngi ciy testé si rek ñoo booy ci loolu. Ah, ci lan noonu. d'ailleurs man maa ngi nii place yaayam sax fa laa jaar doon ko seet si ah bon ah baax na maa ngi fay jaar léegi incha allah waaw maa ngi ñëw maa ngi ñëw incha allah jaajëf Ousmane moom la nu woon nii. ah Ousmane. waaw xam naa dafa maa soxla. ah wax nga dëgg kay. mais baal ma dem. parce que dama ne woon naa fi jaar xool. mooy yaay mënu ñu la mënu ñu la faati ci aduna ah, defal nga ñu lu ne ah def nga lu rafet mom waru ñu lay di gis wax nga deug wax nga deug mais ya gor gor lu bax ah ñoo gor de tey mom bay bokk li dënd ay miram bu ma koy gis boppam bu rëy bi mom da lay dugg ak a génn dënd fa ko li <laughs> dënd ko deug la de <laughs> wa kay ni ba wa kër ga <laughs> isa waaji yow man yi maa ngi lay gis yaag ben xale bu jigéen ngay retane nii mbaadu non du li nga yaakaar sax pourtant euh, du tu te bi ñuy génn doog génn université noonu toujours mhm. xam nga ci lañ affecté woon sawaay Fuuta booy gis nga dëgg sawaay bi mu demee Fuuta am na fa doom comment gis nga li ma lay wax nii Ken expliquer ma man ma dem ba gis ak sama beut ken waxuma ci dara. non attends mais loolu lan nan la meuna nekké nekkee nan. Ken mi ngeen ma xalé bu jigen mi ngay andal temps yi. Ah. gis nga kooku mooy yaayoo xalé bi. man hmm? ma dem ba keur xalé bu jigen bi. fekk fa suma photo man ak góor bi ñi nekk xalé gis nga boy bi ma gisee bi li joggé ci man. mënuma la ko expliquer ci laa xam ni deret du fen te deret du réer booy boo demoon ba ne jàkk xale bi non da ngay xam ni kii góoraay baayam. moom mais attends booy góor nan la mën a jëree deretam bi nga xamante ne moom moo ko jural boppam di ko bàyyi muy taxawaalu ci dëkk bi de gauche à droite ah. mais loolu booy foog ñu taxaw ci ah.

dugg na ci politique bi pour sauver carrière politique am am na jabar am na ay doom presse bi xam nañ ko dëkk bi xam nañ ko peut-être tamit bëgg a sauver carrière politique moo tax mu di ko leen nii benn instant ma dama koy comprendre quoi. booy man daal gis nga carrière politique am ak carrière nangam loolu su ma yoon nekku ci xam nga lu ma ñor avenir u xale bi xale bi laa bëgg mu nekk ci condition yu baax. te politique dëgg la mais base bi njëkk ci moom mooy doomam booy doom dafa neex de doom dafa neex dafa war a toppatoo doomam te menaces yi nga yi paa yi doon def bi ñu nekk xale non fi mu toll nii mënatul def dara parce que déjà ay magum jëmm lañ doonatuñ xale moom ci jëm boppam am na jabar ba am ay doom ñun ñu maag yow kenn ku ci nekk ay responsable lañ amul kenn koo xam ne dafay ñëw suñu place du ñu décider lépp lu ñuy def ñoo ñun ñoo koy décider sunu bopp en tout cas man dama bëgg nga wax ak moom. c'est wax àll ak moom nga xamal ko ni ko doom nawle la. waxal ak moom. en na nag kantaa man duma ko xaar ci dara ci xale bi lépp lu ma ci war a def ci moom dinaa ko def insha allah ci kàttanu yàlla na dem toppatoo doomam bala muy wees man loolu laa koy wax.